dama gis ni coowul franc-maçon am na fi. Hmm. Euh, islam islam la yëpp ma seetaan naa la sax yow 2STV. Hmm. ku ne indi na sa avis. Hmm. wax la ci l'islam wax. coowul góor jigéen am na wax nañu l'islam am wax mais fan yi nag problème statut bii moom ñii naan du xërëm la ñii naan du xërëm. damaa bëggoon tamit ñu am ci position l'islam waxuma ay comme ñii di ko defaa naan baax naag baaxul ak arrange na réew mi arrange wu réew mi de lan la ci l'islam wax dong laa wax man tout court. ñu bañ a déraper génn débat bi même xam nga xam nga lan la ci l'islam wax it islam mom lim ci wax it buñ ko xamé du tere estati bi dina fi nek wa mais wax wax position baax la mais affaireu xerem la xerem kay defe naa lolou loolu mais statut yett yett ci bopam lolou loolu sëñ bi xana dañ koy répété diko ko répété waat kay. mais ku ne kay loolu defe naa wax nañ ko ci lolou jeex. wa affaireu affaire xerem xerem xerem la xerem ci bopam yett yett lo xamné jëm doom doomu la. mom la l'islam interdit lolou wax nañ ko junne yoon ak juroom ñen fukk. deug la voilà lolou kay. def wa mais xam nga comme débat bi dafa dafa nek actualité a ah, pourtant mbirum góor jigéen wax nañ ko fi junni yoon di. maanaam position islam bi leer nañ. waaw waaw mais xam nga tey. problème mu góor jigéen ñi wax nañ ko fi junne yoon te rawul mu ci réew mi. waaw kay mais ba mais bu débat bi ñëwee nañ ko soulever rek. Ah. waaw amul benn problème <laughs> <laughs> jërëjëf. jërëjëf merci Bac. <laughs> bàcc jërëjëf ñu ngi koy gërëm bàcc siis nee na bu débat bi ñëwee nañ ko soulever rek l'essentiel xam nga xam ne da ngay dégg lan la ci diina wax diina dinañ la wax li lim ci wax waaye diina moom dañuy xam lim ci wax rek waaye du tere yëf yaa ngi fi kan voilà mu ngoog kon bàcc bàcc siis ñu koy gërëm.